a une introspection, former des vœux et des prières pour soi, sa famille, ses amis. Donc euh, la conférence des leaders se joint à tous ces vœux-là pour un Sénégal de paix, de concorde et de sérénité. Ce pays vit aussi une situation particulière qui n'est pas nouvelle. Depuis 2012, ce qui caractérise la vie des populations sénégalaises, c'est une pauvreté accrue, c'est un nivellement par le bas, c'est des conditions de vie difficiles, mais surtout dans l'expression des libertés et de la vie quotidienne, c'est un harcèlement permanent. Ce harcèlement permanent

ndokkeel ñëpp ci li ñu génn ci ramadan bi ak ci carême bi ñaan jàmm ñaan wér ñaan tal pour ku nekk ci ñun ñaan jàmm ci réew mi mais li nga xam ni moo am solo tey nga xam ni moo solo suñu daje fii mooy nekkinu askan wi bindunu askan wi mais démocratie bi ni mu baajewoo ni mu mettitee ni ko mettitale ak difficulté yi nga xam ni moom la Sénégalais yi di vivre yéen ñëpp xam ngeen ni depuis 2012 déjà li xew ci réew mi musu am ci harcèlement ci embastillement ci métital les acteurs politiques dans ce pays parce que c'est ça le contexte actuel moo tax tey suñu waxtaan nous jël pour dénoncer wa pas ay paroles mais pour wax li nga Ousmane Sonko et tous les leaders politiques et de la société civile qui sont embastillés parce que nous am nous nous sen nous nous suñu ak dama wax ne ñëpp société civile ak parti politique dañu dajaloo nangu taxawal F24 F24 ñi naan day toppandoo m suñu nangoo ni day toppandoo M23 rek tardé nañu parce que ñëpp yaakaar nañ ni mais surtout gëmoon nañ ni ba ñu génnee xeexu m Sénégal dootul jànkonteeg lii muy a une incertitude d'une petite élection ay incertitude d'un ci droit le respect a yelleef ak à doomu Et Et 24 ñu lal ko tëral ko ñeenti Nous lal ko d'accord Il y a une unanimité totale de la classe politique et de la société civile combattante pour voir bu njëkk bi Macky Sall non à sa troisième candidature bi ci tegu ñu ni nañu def élection inclusive boo xam ni ñëppay bokk warul nangu ñu beddi bépp candidat Nous bi ni les détenus politiques les prisonniers politiques nañ leen génne parce que a su fekke réew dafa dem ba kenn amatul droit wax sa xalaat defe naa day bëgg a doy waar te loolu kenn mënu ko nangu te ñun duñ ko nangu ñeenteel bi mooy le respect des droits et des libertés ce combat de du F24 nous l'épousons c'est pourquoi nous vous appelons tous à la manifestation du 12 mai ne ñëpp ñëw taxaw ne ñëpp ñëw fekke pour wax ni non à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

ñepp bok ñepp bok dans des conditions yo xamni ku nek di nga mën jaay sa bopp peuple bi rek décider voilà li ma bëggoon wax ci ubi gannaaw ba ma leen nuyo ñaanal leen ci koor ge korite beeg carême bi wax leen ni bëgg nañu trop tey ci seen teewaay massive et que ça signifie que yéwi fa mu toll woon ma nga fa nous sommes une famille nous sommes un groupe d'amis amul luñ dul waxtane mais liñuy ñuy sàmm ñun mooy bala ñoo pare ci luñuy def dañu fexe toujours ba mu juboo bu kenn naatable ni dañu tas bu kenn naatable ni dañu taggo bu kenn naatable ni dañu tassaro yag nañuy am problème mais en notre sein nous avons les moyens les mécanismes la force mais surtout la conviction de faire traverser à

ak bitim réew je pense